gis nañ temps yëpp Sénégal am na coow fédération sénégalaise de football doon def beneen élection pour fal euh, ki leen di jiitewaat ci jiitu euh, ci diiran ci ñeenti at euh, falaat nañ maître Augustin Senghor ndax àndoon nga ci ndax bokk nga ci ñu àndoon ci candidature maître Augustin Senghor. bon affaire bi deux phases la parce que tey je crois comme Augustin Senghor yoon mayoon na ko mu mu présenté wu donc personne ne comme ça maintenant. Euh, pour man peut-être euh, ni ñuy fale au niveau de la fédération moo xaw a moo xaw a doy waar quoi parce que bon effectivement je ne connais pas les à 100 pour cent de la fédération parce que mais ni ma déggee nit ñi di ko waxee euh, mënoon na gën a mënoon na gën a yaatu mën na gën a ouvert pour pour permettre au moins tey jii ku bëgg a wu am chance su gagner mais da xam boo liiree rek tu sais ni. même bu nit ku mënti présenté wu il gagnera jamais parce que formule bi ñuy bi ñuy voté pour élire un président de la fédération donc euh, il faut que nga am benn nit fii benn nit fii donc kooku contrôler tout le monde tout le monde vote ce sont les clubs qui votent ce sont les présidents qui votent et quand tu as les présidents avec toi c'est fini quoi crois que mais man personnellement je crois que c'était le moment pour Augustin de quitter voilà c'est pas par rapport à son bilan mais c'est par rapport ak période bi mu def au niveau de la fédération te en plus de ça il avait déclaré que ni boobu mooy dernier mandat donc comme wax na mooy dernier mandat rek xamoon na lu tax mu wax ko donc pour moi c'était le moment de quitter c'était le moment de quitter bon concernant Madi nag je le connais pas trop bien mais boo seetee par rapport à li muy liggéey ci équipe am bon da nga ci am yaakaar quoi mais est-ce que aussi yore équipe ak yore fédération c'est pareil mais équipe bu sax. parce que hmm? équipe aussi est que def na fi loo xam ne gars yi defuñu c'est ça quoi c'est-à-dire que moi je je vois tout le monde dire way mag Mali c'est mais ci benn partenaire lañ koy jugé génération foot quoi. Hmm. général génération foot la yor donc ça marche bien. donc voilà donc ça marche bien. mais est-ce que gérer un club est pareil que gérer une fédération tu vois je veux dire te en plus bon ni nga koy xa ni ma ko seetloo aussi. Euh, fédération dañu benn système boo xam ni Augustin xam na ni muy ndàmpee ñii kaas mhm. ku bëgg dugg ci fédération bi si pour jël sa sa sa sa gain xam nga ni ngay def mooy toogal ci média yi kaas fédération bi liggéeyul sa équipe nationale doxul ñu jël boole la ci jox la sa ndàmpaay nga noppi donc moi je crois que pour que les choses changent le problème c'est pas Augustin c'est la mentalité sénégalaise faut que les gens changent de mentalité cest que c'est ce qui sont là à dire que football bi doxul di kaas ndax li ñuy wax gëm nañ ko ils sont là pour la pour le foot ou bien ils son ils sont là pour leur compte personnel parce que ñi ma remarqué ñëpp c'est pareil hein j'ai pas encore vu de différence tey ñi ma déggoon ñuy kaas ñëpp Augustin doxul doxul bi ñu duggee dañu noppee donc est-ce que exactement je dis il y a des gens qui sont là pour l'intérêt du foot ou bien pour l'intérêt mais pour man la problème c'est pas Augustin c'est c'est l'entourage quoi ñi nga xam ne ñoo ñoo ŋànk football bi dëgguwuñu quoi bu doon dëggu nañu Augustin mën na fi jóge mais tey jii boo toogee Augustin doxul football bi doxul doxul wax ñëpp ne ok quelque mois après ñu ne yaa ngi ci biir nga noppi donc pour man benn système la rek boo xam ni c'est entre eux quoi